mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf euh, ci déglu bi ngeen ñuy faratal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di baaxoo di déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Ibrahima Jula moom Ibrahima Ibrahima Diawla Ibrahima Diawla euh, nekk hygiéniste waaye tamit nekk chef d'équipe de la brigade opérationnelle euh, bu hôpital principal bu Dakar Ibrahima Diawla ñu ngi lay wax euh, jërëjëf ci nangu bi nga nangu uyu ci suñu émission bi waaye tamit di la wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM. asalaamaaleykum Fatou ñu lay nuyu di la ziar. Mm-hmm. di ziare auditeur Rewmi FM yëpp. balaa maa commencé damay masawu di jaale ñi nga xam ni ñoo wàññeeku si mbas mi bi mbas mi commencé ba léegi ñi nga xam ne ñoo nekk si centre yi aussi yàlla na leen yàlla may tan ba ñu génn si jàmm man maa ngi tudd Ibrahima Diaw la nekk hygiéniste au niveau de l'hôpital principal nekk si centre CTI yi nekk à la cellule hygiène de l'hôpital principal aussi mm-hmm. waaw mm-hmm. merci beaucoup pour euh, sa présentation am na solo euh, pour euh, auditeurs yi ñuy déglu wax nga ko ci say biir yi wax hygiéniste nga mais hygiéniste moom dafa mel ni moo bi bu nekkul moo bu bees tamit jàpp naa ne ñu bëri ci askan bi umpale nañ ko tey jii boo ñu doon wax lan mooy hygiéniste lan nga ñuy wax de manière un peu plus simple. waaw ah, bu ma nee hygiéniste mun naa wax ni ñoom ñooy docteuru docteur yi. ñoom ñooy professeur professeurs yi parce que lépp lu nga xam ne dafa aajowu ci set ci biir hôpital bi ak li ko wër ñoom ñoo ko yore te hôpital bi bu setul professeur bi du mun a liggéey hôpital bi bu setul médecin bi du mun a liggéey hôpital bi bu setul infirmier bi du mun a liggéey hôpital bi bu setul malaat yi dañuy ñëw ax benn feebar bu ñuy dem yóbbaale beneen feebar bu ñuy wax les infections nosocomiales loolu nag ñi ko yore cet googu ñoom la ñuy wax les hygiénistes Mm-hmm. d' accord euh, tey ji ginnaaw bi nga jàllee ci li nga xamante ni moom moo di définition bi euh, hygiéniste yooyu euh, naka lañ leen di recruter wala tamit ban niveau de étude la ñuy am ci li nga xamante ne moom moo soxal corps médical bi. waaw dafa am ñaari forme dafa am ñoo xam ne c' est des hygiénistes qui ont fait la formation de l' État et des hygiénistes qui ont été. formé en rampart au niveau de l'hôpital principal par la cellule de formation de l'hôpital principal loo xamante ni booy xool léegi dafa nekk service bu am doole parce que ku ñëw rek dañ lay defal formation par rapport ak ce niveau ñun hygiénistes yu ñu yore mooy ñi nga xamante ni exemple ñoo yore ceytu hôpital bi yëpp si biir hygiénistes yooyu hôpital daf ko xaaj si ñetti pàcc mu def hygiène hospitalière hygiène environnementale ak l'équipe Euh, opérationnel d'hygiène cette brigade bi nga xam ne man maa fa nekk euh, depuis les bientôt des années. Mm-hmm. di jiite. Mm-hmm. donc su biir loolu am nañu aussi ñoo xam ne dañ leen di recruter ñu ñuy wax les agents de service ñoo ñooñu boo xoolee biir hôpital ñoo yore cet gi yëpp ñooñu ñu ngi leen di recruter si niveau BFM. Mm-hmm. léegi wax nga ko hygiénistes yi dañ leen euh, pàcc pàccal ba ñu nekk euh, trois wax nga bu environnemental ak beneen ak beneen mais boo ñu mënoon euh, taxawal defal ñu benn gëstu bu gën a yaatu kenn ku nekk ci yoon fan la sa champ d'opération daal di yem ak tamit lan mooy sa principal parce que da ko koo brosser nii rek mais duggloo ñu buggoon nga nga gën ko yaatal. waaw su ma nee hygiène exemple environnemental. Mhm. maanaam ñoom ñooy saytu. lépp lu nga xam ne mooy karange li nekk si biir hôpital bi maanaam égout yi xam nga ne foofu day am ay raa ak yooyu ñoom ñooy defar égout yi def la déracitation la déracitation euh, la désinfection ak li nga xamante ni mooy la désinfection maanaam dañuy aar bërëb boobu ñi nga xam ne mooy hygiène hospitalière ñoom ñooy dugg si biir ñooy aar malade yi ñooy aar médecin yi ak lépp lu nga xamante ni dafa concerner le milieu médical beneen bi si topp l'équipe d'opération du bi ma nekk moom mooy tampon moom mooy bàyyi faalu ñaari couleur yooyu ñoom ñooy ñooy def li nga xamante ni mooy liggéey xel meeg doole bi waaw waaw euh, ci waxtaan sànq yaa ngi ma doon xamle ne que li nga xamante ne moom moo di hygiéniste bi hygiéniste yi autant pour moi ñu ngi leen di ñu ngi leen euh, di dor euh, ñu ngi leen farat ñu ngi leen di tàmbali utiliser ci jamonoy mbas mi ñu bëggoon rek xam ndax tey jii li nombre bi ñu amoon dafa wàññeeku ndax tey jii bu ñu nee mbas rek c'est vrai que mi ngi fi ba léegi mais dafa mel ni lu bëri nag wàññeeku na ñu bëggoon xam rek ndax ndax seen lim ca début ba euh, ba léegi c'est même. waaw xam nga début bu mu nekk day difficile bu te feebar bi bu mu ñëwee dafa bett ñëpp. Mm. àdduna la lëmbee la lëmbee bett ñëpp. bu ñëwee bettuñu ñun comme que ñun nous sommes toujours dañuy prévenir ci prévention la ñuy dundee euh, ñu jël ñi nga xamante ni euh, ñoo nekk hôpital mooy hygiéniste ñu nekk hôpital yëpp ñu dajale leen tas leen ci ñetti centre benn centre bi di Boufflers beneen centre bi di réanimation beneen centre bi di nekk USIC euh, bu leen tasee ñu nekk lim bu xaw a takku parce que ëppoon nañu euh, trente et quelques di dem. Mm-hmm. parce que par groupe la ñuy def groupe bi bu monté tey beneen ëllëg beneen groupe monté noonu lañ ko doxale woon ba ñetti centre yëpp daj. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Euh, tey jii ndax seen liggéey yomboon na ca jamono jooju. waaw xawoon na yomb parce que xam nga début bu nekk da gis état def ci moyens yëpp. Mhm. mais bu demee ba yàgg rek da gis moyens yi day manqué. te hygiène bi moo ëpp doole ci fajum mbas mi parce que li ngay dégg mbas mi yëpp hygiène bi moo ko yore. Mhm. maanaam ñoom ñooy habillé médecins yi nga xam ne ñooy dugg infirmiers yi ak aides yi ak ñi nga xamante ne ñooy seen morom hygiéniste yu war a dugg parce que fi malade bi nekk. dañ ko war a nettoyer chaque jour fi malade bi nekk lépp li nga xam ne dañ ko fay utiliser comme euh, mbalit dafa am façon mbalit yoo nga xamante ni foog ñu trier ko mais comme que cas bu demee nii la nag dañu jàppee ne mbalit yëpp c'est des mbalit yi nga xam ne c'est dangereux mm-hmm. donc ñooñu nga xam ne ñoo jël mbalit bi si yooyu bu ñu paree dañ koy traité foofu si biir bu ñu ko traité génnee ko si biti bu ñu ko génnee si biti am na ko fa nekk kooku retraité ko ñu yóbbu ko lu ñuy wax incinérateur fu ñu koy lakkee. Mhm. kooku mooy groupe bu njëkk bi. beneen groupe bi xam ngeen ne li nekk ci biir yëpp dafa am ay heures yoo xam ne chaque hygiéniste dañuy dugg defar matériel bi nga xam ne mooy dugg ci biir yëpp dañ koy stériliser désinfecté ko dañ koy désinfecté stériliser ko donc yooyu yëpp rôle lu hygiéniste bi waaw mm-hmm. mu mel ni seen liggéey gën na yaatu mais même si bu fekkente ne askan bi dañ koy daal di umpale tey jii nii liggéey boobu ngeen liggéey dafa mel ni yenn vous êtes autant plus exposé euh, que population bi ngeen di farataal di aar ñu buggoon xam rek euh, ndax la protection ak hygiène bi wax ci yéen euh, mataloon ngeen ko waaw ñun lu ñu sunu borom daf ñoo may chance ba nga xamante ni malgré am na ñu bëri ñu infecté wu su ñun. Mm, mm-hmm. mais maladie bi kenn mënu ko canaliser. parce que mun nga bañ a jëlee ko si hôpital bi sax jëlee ko si biti indi ko mais ñun jëlal nañu ay précautions yu nga xamante ni lépp ay règlement yi loo xam ne dañ ko tënk taf ko si bunt bi li nga xam ne moom nga war a def yëpp te koo gis ñaar lay àndal pour soo fàttee sa morom fàttali la li nga war a def. Mm-hmm. moo taxoon erreur yu bëri daawuloo faral di am. mais dafa nekk liggéey boo xamante ni dafa métti. Mm-hmm. parce que boo xefee tuuti rek ki nga xam ne yow yaa koy solal wala yow yaa koy déshabiller mu nekk ci jafe-jafe parce que loo juum rek mun na ko indil benn contamination moo taxoon dafa nekkoon liggéey bu nga xam ne dafa strict. Mm-hmm. ba pare rigoureux looloo tax mu gën a métti. te boo xoolee filière bi ñuy jaar. Mm-hmm. ba déshabiller la ba génn la nga xool filière bu ñuy jaar ba duggal aliment bi parce que au fait. lii cuisinier bi waroon def yaa koy def. yow rek yaay def rôle bi nekk yëpp parce que tu es l'hygiéniste ñi ñooy dugg si biir serveur ñenn ñooy def lii ñenn ñooy def lii ainsi de suite moo tax seen rôle dafa am importance médecin bu duggee peut-être traitement lay joxe infirmier bu duggee peut-être garab lay joxe mais hygiéniste bi moo leen di aar ñu di dugg ak ñooñu di génn. Mm-hmm. ak mbalit bañ fay bàyyi ak lépp lu fa mën a nekk li nga xam ne malaat bi da koy jëfandikoo tout est contaminé loolu moom mooy waral lépp luy dugg. dañ koy saytu lépp luy génn dañ koy saytu surtout génn bi mhm. même puso buy génn il faut ñu désinfecté ko mhm. boo amoon chance ñëw di nga gis dañu am benn post comme poste douane nu muy demee boo ñëwee dañ lay déshabiller pièce par pièce ba pare désinfecté la nga doog a génn ñëw si zone propre bi. Mhm. Ah, mu mel nii kon da ngeen doon def un surplus de travail seen liggéey bi leen taxoon jóg dafa yokkoon ba jéggi dayo waxuma la yokk ba jéggi dayo mais def ci boole métti. parce que da ngay xalaat karaa ngi kii may aar nii si man mi bu fu weesoo yàlla ak yonent bi la dépend moo taxoon dafa doon métti parce que doo nelaw doo doo doo doo am beneen yitte da ngay am concentration bu doy si ki nga jàkkaarlool. Mm-hmm. am concentration bu doy si li ñu lay indil même malade bi buy génn si yow lay jaar parce que yaa ko war a désinfecter désinfecter ses habits. ak ses yi mu yore woon foofu yëpp pour mu doo génn donc nekkoon na liggéey bu métti métti métti métti métti mhm. waaw euh, nekkoon na liggéey bu métti yaa ko wax du samay kàddu euh, bokk na tamit li nga jiite moom moo di chef d'équipe euh, chef d'équipe bu brigade opérationnelle foofu ci hôpital principal tey jii rek ñu fas yéene taxawaat ci ci ci ci boobu les points brigade opérationnelle lan la wund concrètement waaw boo ne brigade opérationnelle boo koy xool ñoom ñooy bàyyi faalu cellule hygiène dafa am lu ñuy wax cellule hygiène lépp lu nga xam ne euh, dafa concerné mbirum cet gi mm-hmm. si hôpital ñoom ñoo koy gérer mm-hmm. ñoom nag seen rôle mooy ñoom ñooy soldats yi ñoom ñooy douaniers yi ñooy dem xool mm-hmm. njëgam liggéey bi ñu leen sant ñi nga xam ne ñooy ASH yooyu def nañ ko est-ce que fii am na loo xamante ne waru fee nekk est-ce que fii yooyu sonaluñ leen est-ce que fii nangam est-ce que fii ainsi de suite ainsi de mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Euh, euh, ban ban ban ban ban aptitude ban niveau d'étude lay lay lay requérir lay lay lay lay soxla. waaw boobu euh, boobu hôpital moo créé spécialement mu mel ni. Mm-hmm. service d'hygiène. loolu lu muy def. au fait booy xool loolu la dafay laajte niveau BFM. minimum niveau BFM da ngay am. Mm-hmm. waaw sur concours wala euh, am na ay école privée yoo xam ne dañ euh, dañu xaw a spécifique parce que dañu xool lépp lu nga xam ne hôpital war na ko am ñu créer ko. Mm-hmm. léegi bu ñu ko créer day am ce que nous appelons les rampants. d'accord ñooñu la ñuy former ñuy dem di dem di dem ba ñëw ci poste bi mais amul concours direct. waaw. Euh, mun nañ ko méngalee ak ñi nga xamante ne dañ leen di farataal di woowee naan genre ils sont formés sur le tas. voilà exactement booy xool noonu lay xaw méngool. Mhm. waaw parce que si biir lañ leen di former hôpital mooy xool leen lii war na fi am mu jël ay agent am defloo leen concours former leen si loolu jox leen poste yooyu. Mhm. Mhm. Euh, ndax euh, euh, fédéré institut lu lu ni mel yomb na ndax su ma la déggee yaa ngi wax ne moom mooy bàyyi faalu lépp luy yëngatu ci wàllu hygiéniste nga war a regrouper ñoo xamante ne amaana ma sax des fois seen aptitude yi mën na mën na bañ a méngoo loolu ndax ndax yomb na. waa yombul moo tax foofu ñun dañu am lu ñuy wax cellule de formation cellule de formation chaque année tey naan kan moo bëgg a def ban formation. si biir loolu mu xool ñu gën a ab mu jël leen former leen si loolu mu am suivi ba ñu pare si seen formation mu jox leen attestation. Mm-hmm. Euh, ngeen commencé exercer ci jamonoy mbas mi muy coronavirus ñu bëggoon rek xam ndax hygiéniste yi hôpital principal rek lañ leen di fekk wala dañ leen doon fekk euh, ci CTE bu jam ñaajo Dantec ba tax law ci ci ci région yi. fépp fu nga xam ne am na centre rek. Euh, amoon na ay hygiéniste mhm. ba ni may wax ak yow nii ñu ngi ci centre yi ñu ngi ci centre yi mhm. waaw euh, Ibrahima Diaw la ah nga bokk aussi tamit ci service hospitalier euh, ba léegi ci hôpital principal bu Dakar service hospitalier mm, ban ban ban pàcc la ci wàllum corps médical. waaw on lu ñuy wax les agents de service hospitalier xam nga bu njëkk ba. dañ doon wax garçon fii de salle mais hôpital dafa yéegal niveau bi indi benn formation bu am en France bu ñu wax ASH mooy agent de service hospitalier. Mhm. léegi ñoom bu ñu ñëwee former leen si loolu sax demande un niveau BFM et bu ñu leen former ba pare tas leen si service yi ñoom yore service bu nekk ñoo fay nekk ñoom ñoo yore tout ce qui mhm. euh, formation bi ñaata ñaata at lay durer. formation bi un an lay durer. on a day am concours direct même ren sax gis ngeen concours bi on a fait le concours y avait plus de mille et quelques personnes yu ñëwoon. Mhm. waaw euh, ci mille et quelques personnes yooyu noonu ndax lim biñ ciy farataal di di di di di lim bi farataal di at mi dina xaw a am équilibre par rapport ak euh, ñi ñi ñi postulé woon. non mënul lekk parce que hôpital bi si boppam matuñu lim boobu ñëw concours bi foofu donc dañuy seet li ñu soxla rek. ñu jël ko mais comme que ñëpp la ñuy may seen chance moo taxoon. Mhm. waaw ñii ñëpp la ñuy convoqué. Mhm. d'accord euh, centre de traitement épidémiologique euh, li ko taxoon jóg bu ma juumulee moom moo di ne jàppale euh, malade yi nga xamante ne hôpital yi dañuy déborder moom moo taxoon ñu créer leen loolu lépp rek ngir mën leen aar ci jàngoro bi di Covid 19. Euh, Euh, hôpital principal amoon na trois sites mais jamono ji dafa mel ni eh, dafa wàññeeku. waaw ñu ngi sant sunu borom bu baax a baax parce que mbir mi wàññeeku na parce que ñetti sites la ñu amoon te ñetti sites yooyu dafa doon fees chaque jour dafa doon fees ba. vraiment surtout réanimation bi ak euh, Boufflers bi si la créer woon sax troisième site bi parce que mënoo mënatul woon contenir euh, demande bi nga xam ne moo doon euh, maladie doon ñëw. Mm-hmm. waaw tey jii ñaari site moo opérationnel ndax dina faciliter le travail. waa ñu ngi sant suñu borom parce que feebar bi wàññeeku nañu ba tëj nañu usig léegi dese nañu essai yi parce que même réanimation bu mag bi dañ ko mujjee jël. Euh, jël euh, essai yi aménagé fa euh, surtout réanimation. Mm-hmm. donc réa bi site bi mu ngi essai yi Boufflers mu ngi continuer nekk centre bu mag bu gën a mag si principal mooy Boufflers. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ndax condition yowoon ba léegi moo fa nekk. bo ñun dañu am kersa sax di wax parce que boo waxee ñu bëri dañuy foone dañuy naan ñi nekk santé xaalis xaalis non du problème xaalis. mais nit ki. mënul nekk di liggéey même ñun ñii di wax yow élan de solidarité bi nga xam ne defoon nañ ko ku nekk cotiser dañoo cotiser teewul dañu jël euh, pour ñenn ñi salaire la pour ñeneen ñi euh, motivation la mais dama ne fu ñaq di génnee rek pour man salaire la te ëpp lu ñuy boole si salaire salaire la donc salaire la dañ ne woon chaque weer dinañ fay nit ñi. ku nekk cent cinquante mille euh, balaa ñu si doon jot sax dañoo dem ba bëggoon leen ko baal tellement que ñun engagé wu nañ parce que ñun ndax nu mënta demee ay sénégalais lañ te ay sénégalais ñoo feebar jiitalu ñu woon noonu salaire bi ñun dañu woon ak ah engagement ne ñun mbas bi ñoo ko fi war a génne ah mais gis nañ ni ñii defe naa ne fonk ñi nga xam ne ñooy hygiéniste yi yëguñu leen faalewuñu leen parce que nit ki mënoo ko liggéeyloo liggéey bu métti boobu ba weer bi dee nga toog di ko xool muy continuer di liggéey am jom dee di ñëw heure di paasal boppam di dem di ñëw tegle ba mu mat juróom benn weer fayuloo ko mm-hmm. mu génn fippu nga ne ah, ñii nag ñu ngi fippu nga jox ko ñaari weer ne ko lu néew dinaa la fay ba ni may wax yow nii depuis le mois de décembre ba léegi booy xool ñu ngi dugg si septième mois sax parce que tubaab dafa ne un mois entamé est un mois dû xam naa ne léegi ñu dugg si donc ba léegi ñu ngi tergiversé ak ñun. Euh, ñii ne ministère ñoo ñuy fay ñii ne hôpital moo ñuy fay mais dama yaakaar ne euh, loolu dafa war a jeex Sénégal. parce que booy xool ñu ne lu tolloog mille milliards débloqué nañ ko te ba léegi situation yi. Euh, muy gën a di gën a métti si ñi nga xam ne ñoo nekk si centre de traitement yi damay ne gàcce la sax ñun ñu taxaw fii si tele yi ak si rajo yi di wax suñu naqar yu ñuy daj si biir centre yi mm-hmm. te ma wax la autorité yëpp jaar nañ fa mm-hmm. xam nañu lu ñuy daj mm-hmm. gis nañu lu ñuy daj ñoom bu budul dara dara dara waruñu am kersa sax ñun ñu ñuy ameel parce que ñi fa nekk centre yi une fois ma remercier leen rendre leen hommage te olof Njaay dafa am lu muy faral di wax mu ne ku la dikk añ jox la ndékki di nga yaakaar ne dina la jox añ mais ki la dikk añ xañ la ndékki xamal ne du la defal dara te boo gisee même temps yi rek ministre de la santé xaw ma lan lañ ko nommé mais moom war na xalaat ni ñi nga xam ñi tax ñu nommé ko loolu de. ñi nekk ci centre yi la ñoo liggéey liggéey boobu mais moom ak jëmam rek kenn du ko toppatoo. Mm-hmm. ba Sénégal bu ñu koy ràññee cawarteem ak man-manam ak pastefam ci faju mbas bi ñi nekk ci centre yi ñoo tax mais ñooñu boo demee ba yore leen lu mat juróom benn weer sa yaram war naa daw war nga am gàcce sax taxaw di wax ak ñoom. Mm-hmm. ngeen euh, nekk juróom benn weer te joxul joxuñu leen seen payoor euh, te am na yeneen secteur yoo xamante ne eh, xam naa ñu ngi ciy béy seen waar ba ci wàllu wér gu yaram bi ñu ngi ciy dugal xaalis bu takku euh, lan nga jàpp ne moom moo expliqué yéex bi ñu yéex a jël seen doléance en charge. noo du lenn ma jox la exemple na woon ñi nga xam ne ñoom dañ ne woon dañuy dem ceytu ndegam ceeb bi dem si mbas bi dem na wala ñëwul ñoom ñetti millions lañ laajte woon. mais ñii dañ ne ñi nga xam ne ñoo nekk si këru malaat yi te et li may wax nii boo demee si centre yi bi nga fa fekk ñi nga xam ne ñooy liggéey hôpital tëdd parce que mbas ma leen jàpp donc ñooñu amataluñu lu ñu desal Sénégal mais ñooñu laajtewuñu dara lu dul seen feeyoor mhm. parce que ñenn ñi daanaka ñu ngi liggéey mais ñeneen ñi liggéeyuñu si loolu la ñuy jëfandikoo pour mun a dundal seen njaboot donc faykat la même code du travail dafa ne nit boo ko liggéey liggéeyloo ba le nga ko war a fay. Mhm. sakaatuma nag nga toog juróom benn weer dugg juróom ñaari weer fayloo ko loolu dafa métti te dafa daw yaram sax ñu ñun rus nañ ne sax sénégalais di yëg yooyu te sénégalais dañ leen mere parce que mille milliards ba léegi mënoo fay sa employé yi nga xam ne ñoo nekk si centre yi. Mhm. te ñoom yàlla moo si def sutura bu fekkonte ne exemple centre yi dafa teeloon a tëj bon duñ ñu fay. Mhm. sunu deux mois yooyu sax duñ ñu ko jox. mais comme que maladie bi kenn xamul kañ lay jeex mu continuer ñu xam ne ñii fu ñu jëm ak ñoom day kii ñu mosol ñu. deux mois ci mois yooyu vraiment ñii ñu ngi suyeeg seen euh, boru location ñu ngi suyeeg seen problème tu wax naa leen bokkuñu parce que dafa am ñoo xam ne ñu ngi liggéey du poser problème mais ñi nga xam ne liggéeyuñu c'est ça le problème mhm. mënoo di paas di liggéey chaque jour te nga toog juróom benn weer kenn fayu la euh, ba xam da nga jàpp ne euh, dañu dese xam lan mooy priorité parce que liggéey rek liggéey moom liggéey la gis nga priorité bulu boo gis ci àdduna santé moo si njëkk parce que loo mënta def te amoo wér yaram amoo dara micro bii nga jàpp sax di wax ak man c'est parce que da nga ànd ak wér yaram macha allah yàlla na yokk moo tax nga mën a téye micro bi mais soo amul wér yaram boobu doo ko mënoo tal mais ñi nga xam ne ñoo yore lool di ko caytu di si dox guddeeg bëccëg nga téye jàpp leen comme ay cuillère à café loolu moo war a dañ Sénégal même ki nga xam ne moo gën a reculer ci Sénégalais yi moo gën a revenu moo gën a ndaw mooy commerçant yu ndaw yi ku nekk ñi joxe nañ mille francs ñii ñeen fukk ñi ki ñu ne loolu élan solidarité boobu nañ ko dugal ci santé loolu fu ñu ko dugal. Mm-hmm. fan lañ ko dugal. bay yoreel nit ñi weer bay dem ba juróom benn weer loolu du yoon. Mm-hmm. ñoom war nañu rus sax ñun ñu taxaw fii di réclamer loolu. lii moo lay won ne ñii du ñu def comme ay Chine ñu jël seen population santé bi yëpp yóbbu leen président bi accueillir leen féliciter leen ñu sargal leen. ñii wane nañu aussi du ñu fokk fonk santé parce que bu ñu fonkoon santé du ñu toog juróom-benn weer ñi nga xam ne bàyyi nañu seen kër am na ñoo xam ne sax dañuy dem luye ji fenn pour bañ a contaminer seen njaboot euh, loolu yëpp nekk yeneen charge de plus ba léegi ñu leen seen xaalis. Euh, mu mel ni yuuxu bi ngeen di yuuxu euh, dégguñu leen ah. wax nga ko wax jëm ngeen ci côté ministère ñu ne leen hôpital moo leen di fay ngeen dem ci hôpital ñu ne leen ministère euh, moo leen di fay tey jii ndax jéem ngeen a xool au niveau de ci corporation médicale moo xam ay médecin wala ci ay syndicat yoo xamante ne da ngeen di mën a boole seen doole ba keroog ngeen di am ndam. waaw xam nga ñun. Euh, wutuñu ndam sax mais lu ñuy wut mooy euh, ku liggéey ba weer bi dee dañ la war a fay. Mm-hmm. sunu borom sax nee na nit boo ko liggéeyee laata ñaxam di fenn fay ko. Euh, li ñu waroon def yëpp def nañ ko toog nañoo directeur hôpital bi bi passé dañu génnoon syndicaliste yi si boppam ku si nekk si ñun am na entité syndicale bu mu bokk. Mm-hmm. ñooñu ne bàyyi ñun dinañ ko jël en mais ñoom jafe-jafe yi ñu si jot gis nañ ko ñu ne euh, mbéjum kanam daal borom dong dong moo ko mun a fajal boppam ñu xool ne ba léegi problème bi dafa gën a dure e te bu ñu sàgganee day gën a yokk parce que ba li may wax yow tey jii tey jii mais ay père de famille ñoo fa nekk te ñu xam nañ ne père de famille am na lu ko war bu weer bi deewee waxuma sax waxu feet yi mais sa location danga ko war a fay sa doom mu ngi jàng da ko war a jox mu euh, mu fay ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais ñoom amuñu priorité boobu parce que boo xoolee. tuuti lu ma yeneen corps de métier yi mais dama xam ne rek lu nekk ak ki ko gën a yellool. Mhm. munoo bàyyi fii ñii di faj santé nga amel leen xaalis nga yëkkati ay cinq milliards ne da nga koy may ñeneen pour ñu mun a suqaliku seen problème nga yëkkati plus de encore nanga milliards di ko jox ay secteur ay jakartamaan ay chanteur ay kii nga bàyyi ñi nga xam ne ñoo nekk si kër gi système di liggéey si mbas bi ñoom laajte wuñu nga jox leen mais dañu laajte nga fay leen lu ñu la liggéeyal. loolu rek la laaj bu ñu amee lu ñuy récompense nañ ko denc mais nañ ñu fay lu ñu leen liggéeyal c'est simple. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Euh, tey jii nag euh, ginnaaw bi ngeen euh, bindee directeur hôpital yi bind ministère bi lan nga jàpp ne wax dëgg neex yàlla bu ngeen ko defee seen seen kàddu dina yegg fi ngeen fi ngeen ko yaakaaree. waaw benn bu si njëkk mooy xéwal bi ñu ubbil ñu am chance ñëw toog si. réew mi FM wax suñu soxla mhm. wax sunu doléance wax sunu problème wax luñu naqari loolu bokk na ci fànn bu njëkk beneen bi mooy euh, ñun waxoon nañ leen ko comme que bi passé euh, délégué yi dañ ñëw ñaan ñu bàyyi mais dañ leen bëgg a xamal ni euh, comme lu ñuy gëmloo hôpital principal nekkul un hôpital militaire mhm. c'est un hôpital d'établissement santé comme Dantec Fann CTO ñu nag Abass Ndao nag dañu am benn statut spécial loolu rek moo ñu wutee mais. du hôpital militaire. statut spécial bi muy ñun dañu dépendre ci ñetti ministère. Mhm. ministère de la santé. Mhm. ministère des forces armées. Mhm. et ministère des finance yéen hôpital principal ñun hôpital principal loolu mooy particularité bi. moo tax euh, buñ ne ñoom dañ leen ne hôpital. Euh, du hôpital militaire mais hôpital buy formé militaire la ci wàllu xam-xam. mais ñoom dañ ko jàpp nangu def ko moomeel moo tax euh, euh, ku wax ñu massacré la wala ku wax ñu jëm la jaay rigueur te ñun civil yi ñoo tax ñoom li ñu nekkee ni ñu nekk ko mm-hmm. parce que bu ñu ñëwoon ñoom fekk hôpital bi wuñ ko comme il la faut duñ fa xaj mm-hmm. waaw euh, mu mel ni yaa ngi laal fi nga xamante ne moom moo di gestion bi euh, dañuy wax hôpital bi dafa am euh, connotation militaire mais parallèlement aussi bëri na ay civil yu fay yu fay liggéeyee waaw hôpital bi man ñoom ñoo ko tuddee hôpital militaire parce que des militaires bu la neexee man mais hôpital civil laa ko tuddee. Mm-hmm. booy xool quatre vingt quinze pour cent c' est des civils nekk hôpital militaire. Mm-hmm. hôpital dañ ne hôpital d' instruction maanaam fu ñuy jàngee xam di leen di instruire parce que euh, instruction et hôpital militaire c' est différent mm -hmm. c' hôpital d' public comme yeneen hôpitaux yi mm -hmm. comme Dantec Fann et tout mm-hmm. mais du hôpital militaire c' nag nous avons eu la chance de travailler avec euh, euh, nit yu weex yi ñooñu moom ñoo yore woon hôpital bi te ñun ñoo xeex aussi pour nangu ko si ñoom pour sunu sunu mbokk nit yu ñuul yore ko waaw. Euh, tey jii ngeen di dépendre ci ministère de la santé ak euh, ministère euh, des des des des forces armées ndax indi solution dina dina dina yomb ci misaal ku nekk dafay wax ne lii di sama domaine lii sama domaine la tey jii ndax am solution dina yomb d'autant plus que trois ministères moom moo leen épaulé. waaw mais xam nga hôpital bu ñu trois ministères épaulés tamit l'hôpital est autonome hôpital dafa yore gestion boppam euh, hôpital rek mënoon na fay ñi fa nekk des ministère parce que ñun waruñu woon sax am problème hôpital moo waroon jël di ñu fay bu weer bi deewee mu fay ñu bu ko ministère joxee mu dugal ci gafaam noonu la waroon demee loolu mooy logique parce que bii passé bu ñu génnee dafa am note bu doon wax ni xaalis bi dañ ñu dugalal euh, xaalis pour ñu fay parce que daf xaalis bi bu ñu ko dugalee dañ ne nañ si jënd garab la fay si euh, personnel bi et toppatoo si mbirum Covid bi ñu gis ni fayum personnel bi ñoom dañ ni foog ministère bind note ne dañu war a fay personnel bi si xaalis boobu. Mhm. pour ñu fay ñu. ñu dox ministère bind ne leen nag de leen fay si xaalis boobu loolu kon jaratul woon sax ñun ñuy ñëw di dem ay génn hôpital rek mënoon na jël xaalis boobu fay ñu si xaalis bi parce que l' état daf ñu aussi état xam na fu nekk xaalis ba fa dugal ak li mu fa dugal te xam nga lu gën a bon ñi nga xam ne ñooy liggéey si mbas mi xaalis mbas mi ñëw ñu jël ko di ko dox si yeneen mbir di tabax fii di jënd fii fàtte ñi nga xam ne ñoo tax sax xaalis bi dugg le acteurs principaux oto rek du dawal boppam. Mhm. donc hôpital rek ak maladie du fonctionner la personnel si la bokk. parce que fonds de roulement la fonds boo xam ne mooy tax fonds hôpital bi fonds de fonctionnement nii mais ñiy fonctionner loo hôpital bi aussi war nañ si mun a gis seen bopp. Mhm. ñun demandé wuñ leen ay prime wala des teg toujours suñu jox ñu suñu salaire. surtout tout. Euh, mu mel ni bu ma la dégg ni bu ma la déggee Ibrahima euh, ni ñu ni ñu ni ñu gérer xaalis euh, bi ñu jël dugal ko ci mbas mi dafa mel ni gestion bi dafa dafa dafa amul équilibre. non amul équilibre parce que même booy xool dans sa globalité service yu bëri xaalis mbas bi bu mu duggee ñii dañ si profité jëndaale si ay équipement yu bees. Mm-hmm. defar si seen yenn euh, euh, emplacement yi nga xam ne foofu la centre bi nekk ak yeneen ak yeneen mais loolu yëpp su si amee euh, secteur bi nga xam ne foofu la état bi injecté xaalis bi exemple bu nekkoon hôpital ñu ñu jënd si xaalis bi benn rajo mais nañu xam ne rajo boobu ñu jënd day jur donc lu muy jur xaalisu mbas bi la mm-hmm. donc ñoom war ñoo mun a am nag ab ngor fay ñi nekk foofu su xaalis su état dugalee xaalis ñu jël ko si. waaw parce que mbas mi même mbas mi mu jeexee xam nga rajo yooyu ñu jënd ak yooyu du génn si hôpital bi day des donc c' est des investissements yi nga xam ne état bi def na ko fa donc ñoom ñoo war a am xel aussi loolu ñu koy tenir compte bu xaalis duggee ñu fay la personnel d' abord parce que c' est très important ñi fay liggéey dañ leen fay. balaa ñoo def dara nañ leen fay. waaw. Euh, tey jii boo doon def euh, benn euh, bilan wala évaluation bi ni nga xamante ne moom la ñu gérer pandémie coronavirus bi bilan bi kon dafa mitigé wala si yow dafa négatif. waaw bu fekkee ne côté gestion la en matière de maladie ni ñu doon gérer maladie dañuy sant suñu borom. Mm-hmm. parce que maladie yi ñu bëri bari bëri wér nañ si mbas mi. malgré au début c'était difficile il y avait trop de mais après gis nañ ne euh, xaw nañ si am euh, njàngat bu bëri ba mun naa wax ni si côté boobu moom vraiment sant nañ suñu borom. Mm-hmm. côté bu ñu lajjee kañ. Mm-hmm. mooy côté ressources humaines bi. côté ressources humaines. waaw parce que toppatoowuñu personnel bi li ñu waxoon ñëpp dañ ko deful da ngay dem ba boo gardee guddi gi sax doo lekk parce que li ñu lay tegal loolu lekk sa kër doo ko lekk feneen. Mm-hmm. yooyu yëpp day wone ne rek ba léegi ñàkk fonk bu ñu ñàkk fonk personnelu santé te ñooñu pourtant booy xool Afrique fii kenn mënu leen dañ bañ nañ ko ba sax Afrique fii si sous région bi ñun référence lañ si donc ñooñu nga xam ne ñooy référence yi euh, dañ leen war a toppatoo toppatoo bu baax a baax a baax mais gis nañ ne toppatoo bi si côté personnel bi dafa manqué bu baax a baax a baax. Mm-hmm. Euh, jëm ci wàllum euh, infrastructure nag ak euh, am na ñu doon wax ne plateau médical bu Sénégal dafa des lu bëri bari tey jii am na ay dëkk yoo xamante ne jàpp nañ ne Sénégal raw na leen même si fekkente ne ñi nekk ci Sénégal appou approuvé wuñu lu nimel mel naka nga jàngatee aussi lu ni mel laata ñuy dugg ci seen problème de personnel bi. waaw Sénégal man mun naa wax ni euh, dafa am mythe bu bu grave bu fi nekk parce que ñoom dañu jàpp santé def ko comme centre commercial. Mm-hmm. booy xool ba nit yi sax dañ koy woy ku amul xaalis doo faju or que santé dafa war a nekk ci rubrique sociale même boo amul dara comme nu ko sunu constitution waxee droit à la santé et droit à l'éducation c'est des droits yu nga xam ne c'est fondamentaux nit ki daf ko war a am boo feebaree même boo yorul benn dërëm da nga war a faju mais fii boo feebaree boo yorul dërëm boo yotul da ngay am problème. Mhm. loolu lu ñuy yàq ni si xaalis yi su ñàkk fayda yi est-ce que buñ ko injecté woon si secteur santé nga foog ne loolu du amélioré wu. Mhm. loolu mooy wane ne rek dañu lajj si secteur santé parce que li ñu war a def yëpp defuñu ko. Mhm. Euh, kon slogan boobu ñuy wax la santé pour tous yow gëmuloo ne lu ñu mën a matérialiser la. man gëm naa ne mën nañ ko matérialiser mais gëm naa ne ñi fi nekk nii ni ma gisee nii seen plan bi du ñoom ñoo koy matérialisé parce que li fi amoon dafa gën a pire bu njëkk ba sax daa nga faju da am problème dem faju mhm. mais léegi ak système yi fi nekk yëpp plan Sésame santé nangam nangam. CMI yëpp ba léegi ça reste un grand problème. Mhm. donc c' est système qu'on changer. c' est système qu'on changer. Mhm. boo boo jàpp boo waxee ni c'est le système qu'on doit changer euh, ci ci ci ci changement ci ban anam. mais da ngay xool si anam yëpp man mënuma comprendre euh, nga ne da ngay jël nangami milliards tabax ko arène mbër mi dafa fay bëri su wérul du tal bëri mais nangami milliards boobu tabaxoon na ñaata dispensaire mais da ngay xool. Euh, recrutement personnel médical fii rek ngay gis Sénégal ñi jàng santé muy médecin muy infirmier muy aide nga pare génn di chômer loolu euh, gàcce weesuwul loolu. Mm-hmm. te boo xoolee partout au Sénégal dañu manque personnel santé. Mm-hmm. loolu moo lay wan ne c'est un système qu'on doit revoir. c'est un bi dafa dafa dafa dafa yaatu. non dafa yaatu trop parce que exemple dugal ci région yi rek nga xool. pour nga am e, si spécialité lu mel ni ay ophtalmo ay dermato ay estomato je te donne exemple man su ma soxla woon tey rendez-vous ophtalmo mhm. boo dem euh, rendez-vous yi day dem ay août septembre octobre novembre lañ lay jox mhm. c'est pas normal hôpital war nga ñëw ñu xool la bindal la ordonnance nga dem mais rendez yi dafa sori ba nga xamante ni c'est parce que yaa am problème mhm. Euh, problème yooyu nga euh, liste nii muy service ophtalmo muy yeneen ak yeneen ak yeneen c'est vrai que euh, Sénégal du Dakar mais pratiquement Dakar sax amaana ma ñoom ñoo tane mais boo xoolee eh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci région yi am na yoo xamante ne buñ ko bëggee def il faut impérativement ñu ñëw ba Dakar moo xam ay analyses ñu war a def ay rajo ay mamographie ndax loolu aussi mu ñu wax ne dañu xaw a dellu ginnaaw ci wàllu woowu waaw moom laa lay wax xam nga Dakar tant que bàyyiwuñu jël Dakar ak jam ñaajoo rek mhm. ñu foole mooy Sénégal dañuy nax seen bopp mhm. parce que ñoom ñuy gis nga te li ma lay wax ni gouvernement bi genn wàll gi yëpp boo xoolee ñu ñu ngi jógee ay saara yow ak euh, nuñ koy wax ay ngeer malal ak affaire yeeg yooyu mais lépp dañ ko jël indi dakaar c'est très dangereux mhm. léegi day moo waxalal fii dakaar dafa xat bu ñu décentraliser woon hôpital régionaux yi nekk ci Sénégal yëpp ñu utiyee ko hôpital dispensaire yi nekk ci Sénégal c'est surtout àll bi man booy defar da ngay commencer ci fond ba. Mhm. parce que ñooñu ñoo gën a manqué moyen. bu ba léegi lu ma lay wax nii boo demee ay côté Kédougou su la waxee nii dañ koy teg ci brouette di ko yóbbu maternité doo ma gëm. da mais loolu mooy lan ak risques yi ci am yépp donc ñoom seen xalaat bu ñu demee ci àll bi rek campagne la. Mhm. seet leen fi mu nekk nii léegi nga gis ñu commencé àll bi ci lañ leen doog a mais waa àll bi euh, aussi ñoo ko def seen bopp boo fi ñëwee campagne dama lay dàq vote nañ ñëpp voté bulletin nul ndax ñu jox leen considération région yi moom vraiment jox ñu leen considération Dakar rek la ñu respecté mu mel ni loolu tamit euh, xel dees ko nangu waaw xel mënu ko nangu étant donné que région bu nekk jël nañu député teg fa mu war leen porté mais gis nga député yi li fa nekkee kenn mënu la jox projet bu baax ne maa defar lii pour suma dëkk ñoom ñëpp ba d'ailleurs que sax bu ñu ñëw xëse ñëw Dakar ñu genn wàll gi dootuñu dem seen dëkk fii la ñuy loge mhm. mais loolu dafa war a deñ ba kañ la ñuy continuer di dem mhm. loolu dafa war a deñ mhm.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 hygiéniste yi mu mel ni da ngeen am lu ñuy duppee benn problème de personnel euh, ci ci ci ci yaatu rek ñu buggoon nga nga dellu ci ci. waaw ñun problème bu ñu am actuellement c'est pas un problème de personnel mais c'est un problème lié aux hygiénistes qui sont dans les centre de traitement ñi nekk ci centre de traitement yi ñoom lu ñu leen di traité moo. moo jéggi dayo parce que mënoo liggéey ba weer bi de ñu ne vraiment duñ la fay mm-hmm. loolu moom xalaatatuñ ko moo taxoon ñu ne ñun dinañ ñëw fi nga xamante ni foofu la euh, Sénégal yëpp di xool di déglu ñu wax ñoom parce que jot na aussi ñuy jox nit yi surtout ñu nekk ci hôpitaux yi seen àq boo gisee des fois da ngay ne sax hôpital yi dañuy ñàkk kersa nit mun na énervé mm-hmm. nit ki mun nga ko di ko faj di xalaat dépense wala di ko faj di xalaat ne bàyyiwoo dara sa kër wala di ko faj di xalaat ne man mii su ma fi jógee du mu am paas. Mhm. mais loolu yëpp day renforcer euh, day renforcer énervosité nit ki parce que ñëpp xam nañ ne Sénégal métti gu mu métti rek nga boole si weer bi dee fayuñu la mhm. loolu mën na jur leneen. Mhm. Euh, sànq yaa ngi ko doon wax yaa ngi wax dafa am ñoo xamante ne dañoo nekk fii am ñoo xamante dañoo jóge bitim réew. Euh, waaw dafa am ñoo xam ne si hôpital bi la ñuy liggéey am ñoo xamante ni hygiéniste yi dañ leen jël parce que première vague bi mu ñëwee euh, pour bañ a fay ñi fi nekkoon après ñu bëri dañ leen dindi si liste jëli ay nit si biti ñëw pour ñu def liggéey boobu mm-hmm. mais ñun dañ ne rek <laughs> gisee ko lu maal dañ ne amul problème ñu ñëw rek mais ñoom boo xoolee genn wàll gi yëpp sax nee nañ dañuy bàyyi parce que xamuñu ko ñun doon doon dem ak sunu ngor sax même buñ ñu fayul dañuy toog di xaar ñu fay ñu mm-hmm. mais ñii ñu ko xaar parce que ñoom dañuy paas di boobu ba léegi nag euh, Ibrahima ñu ngi wax askan wi di leen ñaax ngir ñu dem euh, ci bërëb yi vacciné ndax jàngoro bi mu ngi fi ba léegi tey ji ñu buggoon xam rek yéen ñi nga xamante ne ñeen yëngut ci wàllum hygiéniste euh, donc di def lépp lu jëm ci wàllum set ci bërëbu hôpital yi ndaxte ndax nii yéen euh, vaccination boobu gis ngeen ci seen bopp. waaw vaccination boobu gis nañ suñu bopp parce que ñun programme bi ñun la njëkk laal. Mm. képp ku nga xam ne agent de santé nga euh, dañ la woon nga ñëw vacciné wu. am na ñu gëm vacciné wu am na ñu gëmul aussi vacciné wuñu mm-hmm. waaw. Mm-hmm. d'accord li soxal euh, communication bi jëm ci vaccination bi ndax gisuloo ni dafa xaw a tagg témbe eh, ci misaal am na ñu bëri ñoo xamante ne comme ni nga ko waxee ségam yéen ñi nekk ci corps médical bi yéen ci xaw a am euh, xel ñaar euh, massama ak sénégalais bi nga xamante ne eh, bu sañoon tànkam du dëgg hôpital. waaw loolu moom dëgg la mais xam nga en matière de vaccination. Mm. nit ki mooy nangu ñu vacciner ko rek léegi. santé dafa am nu muy doxee nit ki lu mu nangul nga defal ko ko boo ko defalee rek mun na la porter plainte mhm. donc am na ñoom ñoo waroon doxal seen cellule de communication ñu gën a euh, waxtaan ak population bi si vaccin yi encouragé leen ba pare rassuré leen parce que nit ki aussi lu dal xelam rek lay def. lu dalul xelam mënu ko def te gis nga vaccin yi du fii rek même ba si àdduna bi yëpp dafa bëri problème mu wax da ngay gis euh, ndegam nii di defar vaccin yi ñoo d'accord na ni. vaccin yi am na problème loolu aussi day tiital communication si biir communication population. Mhm. parce que bu fekkee ne ñi ñoo koy defar ñooy nekk di wax sakatumaa ki nga xam ne moom day jël rek tant que xelam dalul du ko mën a jël. walla mhm. loolu communication yi moo des si affaire vaccin yi. Mhm. Euh, des ba léegi si wàllu woowoon tey jii prise en charge ñi nga xamante ne ñoom ñoo di hygiéniste yi comment ça se passe si toutefois euh, virus bi daal di leen daaneel euh, na naka lay demee. waaw parce que ñun ñi ngay gis ni dafa am saytu boo xam ne chaque jour dañ koy saytu. Mm-hmm. parce que am nañu ay médecins yu nekk foofu am nañu ay surveillants yu nekk foofu boo jàmbatee dara rek automatiquement dañ lay isolé. defal la euh, test yi xool su fekkente ne test yi euh, gis nañ si danga nga positif ñu hospitaliser la si biir centre bi defal la traitement. Mm-hmm. mais durant yi ngay defal test yëpp dañ lay isolé doo liggéey. Mm-hmm. da ngay nekk sa kër d'une part nga xam nga procédure yëpp nga respecté ko. Mm-hmm. su fekkee ne résultat bi génn na ñu woo la ne la ah. Euh, c'est négatif wala c'est positif. Mm-hmm. waaw bu fekkee ne c'est négatif tu nga ñëwaat continuer sa liggéey bu fekkee ne sa positif euh, ambulance bi dem jël si la ñu ñëw hospitaliser la commencer sa traitement. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Euh, boo tàmbalee sa traitement. Euh, Covid moom xëj na léegi wàññeeku na mais au début am na ñoo xamante ne dañu daan feebar sax mais eh, dañuy ragal a dem hôpital li koy waral moom moo di ne euh, stigmatisation bi ci bi ci bi ci bi ci bi ci bi ci lal ndax euh, yéen ñi nga xamante ne yéen ay nekk ci milieu bi di hygiéniste particulièrement hôpital principal ndax mës ngeen am cas mu leen la ne kii dafa am Covid ak tamit comment est-ce que vous avez géré ça parce que hygiéniste bi moom nit la rek. Mm-hmm. li may waxee ak yow nii boo demee si centre ba di nga fekk sunu yenn mbokk nga xam ne ne mm, feebar bi daf leen jàpp. Mm-hmm. parce que feebar bi euh, lu tax mu gën a métti xàmmeewul gauche xàmmeewul droite moom bu la waxee jàpp rek di jàpp. Mm-hmm. mais yow mi mu jàpp nag moo taxoon sensibilisation bi daf see baax ñu xamal la jàngoro ji nu muy ñëwee bu ñëwee noo koy gàttandoog yëpp mais am nañ suñu mbokk yu fa nekk fii mais ba ni may waxee yow nii am na ñu ñu hospitalisé centre yi liggéey hôpital. Mm-hmm. yoo xamante ni ci chaîne bi fa lañ ko fa lañ ko jàppee parce que chaîne bi dafa gudd boo jëlee ci centre bi xam nga chaque jour malade bi fa nekk dinañ ko defal ay traitement traitement yooyu fi muy dem yooyu yëpp bu amul précaution yu si mat mun na am ce que nous appelons les gestes mm-hmm. yooyu yëpp mun na ko indi euh, ba contamination am si mm-hmm. mais yooyu yëpp euh, suñu borom euh, daf ñu si suturaal ba dañ koy gérer comme il le faut ko da ngeen koy gérer comme il le faut mais stigmatisation bi nag comment est-ce que vous arrivez à à à gérer ça. xaaral ah, ma nettali la benn anecdote parce que euh, kii bi ba mu commencé Covid bi man ambulance bi daf ma doon jël si vingt euh, cinq heures du matin delloo si waat ma vingt trois heures. Mhm. Euh, ba vingt trois heures. <laughs> wallaay chaque jour pendant presque un an. Mhm. Euh, benn jour man dama toog rek gis euh, sama bopp ci internet bi ñu ne sunu waa kër dafa am corona dañu am corona ba vraiment gars yi di ñu daw sax <laughs> parce que gis nañu ambulance bi xamul lan moo fi mu foonee. Ah, d'accord corona moo fa moom lay jël si. léegi pour dindi ko ma toog di waxtaan ak ñoom ba finalement ils ont compris léegi nag bu ñuy gis ambulance bi chaque jour ñu xam ne vraiment. kii euh, personnel hôpital la bu ñuy jël si parce que instant yooyu dañ tolloon si couvre feu mm-hmm. en plus oto dafa jafe woon léegi ambulance mooy ñëw le matin jël suñu le soir mu yóbbu ñu waaw mel jamono yooyu amul ba léegi ñu ñuy waxee yow nii amuñu vie de famille parce que ñun aussi dañ doon ragal sax contaminé suñu famille te am na. ñoo xam ne contaminé ñi seen yaay yi ñi seen jabar yi ñi seen papa yi ba am si sax ñoo xam ne am na ñu si wàccub liggéey ñu ngi leen di ñaanal suñu borom mu xare leen àjjana. mais loolu risque yooyu yëpp nga daj ko mu dal la ay samba booy tëdd fële lekk xaalis bi raay seen biir yow ñu bàyyi la si galère bi. lu mat juróom benn weer fay ñu loolu rek dafa doy gàcc. mais est-ce que euh, temps de travail bi ak ni mu stricté am na leen lu ci wàññeeku j'imagine wala ba léegi yéen a ngi def cinq heures du matin vingt trois heures. waa léegi wàññeeku na boobu c'était au début. Mm-hmm. au début parce que ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon à la cellule hygiène il fallait ñu craquage ñu rey suñu bopp pour mettre la système. imposer waaw pour mettre la système parce que ñu fa ñëw yëpp il faut ñu won leen les dispositifs à nan la ñuy def nan la ñuy def. donc il fallait que ñu ñëw cinq heures pour retourner à la maison à vingt trois heures. waaw. Mhm. Mhm. mais léegi wàññeeku la. waaw léegi ñu ngi sant suñu borom parce que léegi boo liggéeyee tey day toog ñaari fan. Mhm. doo liggéey. loolu lépp mu mel nii eh, dellu ginnaaw wala wàññeeku oh, lim bi am eh, jàngoro bi moo koy expliquer mais eh, yaakaaroo lool ne yéen waa CTE yi dinañ leen utiliser waat d'autant plus que am na ñuy ruumandaat troisième vague ci misaal am na il fut un temps on nous parlait de dix treize mais semaine bi yëpp ñu génn dafa mel ni lim bi mu ngi ëpp cinquante nday tey jii rek ndax yaakaar taxawoo leen ne dinañu dellu si ci boobu lay rigueur. waaw parce que man euh, waxoon naa leen ko ma ne leen ñun dañoo teel a baisser bras parce que communication bu bon la parce que mbas mi ak nu mu mel mais dangay ngay xool rek liñ doon tere yëpp ñu ngay def oto yi ñu ngi fees dell marché yi waxi noppi léegi amul benn benn benn mesure bu ñu bu ñu jël bu yi amul. moo tax kaa yi gis nga day def courbe à dents des fois mu yéeg des fois mu wàcc des fois mu yéeg mais tout est possible parce que feebar bi nekk na feebar bu saay-saay boo xam ne mun na jékki-jékki rek yéegaat ba gars yi naan déedéet mm-hmm. mais état foofu lañ koy xaaree mu continuer les mesures la parce que mesures yi du doolaate du kii mais sensibiliser nit yi la mm-hmm. exemple da ngay dugg si bus ñu ne la wàccal nga ne non kanaka ñu ne la non solo masque wàccal mais bis boobu waa Dakar dem dikk ils ont assez de moyens bu duñ jël paquetu masque teg foofu. Mhm. ku dugg par euh, par oubli mu jël benn masque sensibiliser ne xam nga nii ak nii mais solo masque bi beneen yoon da nga koy def mais non. Mhm. loolu euh, manquement yooyu moo am si dëkk bi ba mbas mi day yéeg di wàcc rek. Mhm. xanaa di ñaan suñu borom mu génnee ko fi mais gëmuma ne mbas bi dina fi jóge léegi. manquement yooyu noonu ci loolu dugal leen ko war a teg a qui la la la la faute. la faute c'est dans les deux parce que nit war na bëgg boppam ba di def loo xamante ni du xaar sax ñu wax ko ko. rawatina mbas mi. rawatina mbas mi beneen bi xam nga état mooy gérer peuple mais état bu fekkente ne yow yaay gérer pëpp nga taxaw di def yenn yi peuple bi da lay suivre. te gis nañu état bi nu ñuy comporté woo gis nga leen ci meeting yi. gis nga leen si yeneen ak yeneen yoo xam ne dafa ñàkk fay fayda ba nga xamante ne ñu dajale nit yi nit yi bëri fa ainsi de suite ainsi de suite d'accord apprendre à vivre avec le virus mais toujours dafa am ay règles mais règles yi fa am yëpp respecter tous di mm-hmm. benn benn benn mm-hmm. donc loolu il faut s'attendre à tout mm-hmm. cinquième vague sax mën na fi ñu mu mel ni seen comportement moom mooy inciter ñu bëri eh, euh, di di def comme si la maladie n'existe plus waaw tuuti lu mu askanu naar nag mais damay dégg ñuy naan naar bu ndaw lu mu def rek si naar bu mag bi la ko gisee donc population day rey si si ñu ngi ñi leen di jiit si gouvernement. Mhm. moo tax guvernement booy def dangay def lu am fulla ba ki nga xam ne yaa koy gouverner du la mën a seen du si lu ñàkk fayda. Mhm. mais malheureusement du noonu lay doxee sunu sunu gouvernement yi. Mhm. Ibrahima nag eh, jóge ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw ba rajo réew mi FM di tendance naar yi ah loolu moom mbokku auditeurs yi ñu ñoo ko déggandoo wax dëgg yàlla amatuma lenn lenn lenn lu ma ciy tekk waxtaan wi amoon na solo lool échange soon na euh, échange riche na vraiment euh, jaajëfal fu jaajëfal ko bu baax a baax euh, Ibrahima Diaw la mu mel ni li ñu cëraloon ci waxtu wi daanaka yegg nañ ca. waaw xanaa soxna Fatou di la remercier. Euh, di leen ñaanal rajo bi ak télévision bi yàlla na sut seen njort di wax ne gis nañ nu ngeen taxawoo askan bi parce que askan bi lii la soxla ku leen jege te yéen vraiment gis nañ ne jege ngeen askan bi trop te séddoo ngeen aussi ak naqaru askan bi parce que euh, même l'islam loolu la santaane soo si mënul def sa doole soo si mënul wax ah amatul benn sens te yéen yéen a ngi siy wax yéen a ngi siy def seen doole di leen remercier rek di ñaan suñu borom yéen xam loo leen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal di ñaan mbas mi jóge fi si jàmm di ñaan aussi euh, ngeen am ay chaîne chaîne chaîne chaîne chaîne si Sénégal rek si Afrique ak si àdduna bi yëpp Euh, yal na yàll na ñaani nangu te ñun ñëpp ñu fekkee ko te tamit mu jik ñu mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi doon teewlu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé amoon mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Ibrahima Diawla Ibrahima Diawla nekk hygiéniste waaye tamit nekk chef d'équipe de la brigade opérationnelle de l'hôpital principal de Dakar nekk na tamit formateur des agents de service hospitalier ba léegi ci hôpital bu principal euh, fàttali ne ne Fatou Baba Fall moom moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy moo nekkoon ci xarale bi beneen vendredi beneen invité ci beneen émission jërë ngeen jëf ci déglu bi